comptable ba ñu ko xayma toll na ci ñetti cay millions octobre la woon journal bi nee na agresseurs yi nga xam ne moom la nday may moomee lijjanti woon agresseurs yi ñoo ngi fekk baax fi nga xam ne mooy gox bii di Grand Yoff yéene gi nee na procureur bi démb nag nee na nday mbay ak ñi nga xam ne ñoom la tuumaal na ñoo def googu la ñawtee fa nañu leen tëj li des ci seenug dund fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai la leen di létt wala ñu firi képp koo xam ne am nga mbokkam puune loo man ci denc ko bay boo nga def ko ndax ñi nga xam ne ñooy maam mën yi maanaam njabarkat yi ak politiciens yi ak ñi nga xam ne ñooy wutkati xaalis yi ñi ñu ciblé ñooy albinos yi maanaam puune yi dañu leen di faral di sacrifier yéen a kaay gi di direct news wax ci ànd bi Macky Sall ànd ak Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha sa journal bi nee na ñett ñi jiite nañu ay institution yu am doole ci réew mi waaye nag ban njariñ la ñu amal Macky Sall loolu la journal bi xëy di laaj ndax nee na élection locale yi xam ne moom la ñu génn Idrissa Seck dañu koo gàñe gàñe gu métte ci gox bii di Thiès PDS bu dee Aminata Mbengue Ndiaye ci élection yi Mamour Diallo la jàppale woon ca diwaanu Louga Moustapha Diop jàppaleen fa dóor leen dóor yu métte métti su dee nag Moustapha Niass Benno Bokk Yaakaar dafa ñàkk fi Moustapha Niass fekk baax di kër ma jabel yéene kaay gi de la Tribune xëy wax ci Abdoulaye Baldé nee na puusul paasul lan moo ko bàyyi ci biir Benno Bokk Yaakaar wala Macky Sall daf ko jàpp otas Macky lu jëm ci ay valeur yoonam nekku ci yéene kaay gi de la Tribune nee na yërëm yedd ko gën a Sall amatul inspiration maanaam jamono ji bëtam yëpp ma ngi ko teg ci transhumance yi journal bi di Rewmi Quotidien moom xëy wax ci carburant bi nga xam ne moo manqué carburant bi ñu dugal ci roppalaan yi Sophie Gladima mi ñu dénk wàllum pétrole bi démb yëkkati na ci ay kàddu dalal na xelu askan wi waaye nag nee na guerre bi nga xam ne moo am ci Ukraine moo ko waral situation la boo xam ne situation bu day war a wal fajir yéen kaay nee na wax ji kay mooy Sénégal ci boppam moo jël balu fetal daal di koy dóor ci tànkama Dakar Times nee na lu jëm ci wàllum carburant bi nga xam ne commencé naa manqué bay bu ñu jël ci matukaay lu ko mooy rek ñu bare bari danañu ci ndax askan wi nga xam ne ñooy yëngutu ci lu jëm ci wàllum pêche maanaam ji amatuñu carburant bu ñu demee ci géej gee yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na soxna si njiitu réew fay Marème Sall lu toll ci cinquante tonnes ceeb la Marème fay Sall yóbbu woon te diiwaanu Fatick waaye nag ceeb boobe jigéen ñi bokk ci benn bokk yaakaar la ko Marème fay Sall doon jox ceeb ba nag dafa mujjee nekk saafara bu jur jàngoro ndax na xaajale na jigéen ñi benn bokk yaakaar yi xuloo bu mag moo dox seen diggante yéen a kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu projet bi jëm ci liggéeyaat hôpital Dantec démb jébbal nañ ko njiitu mi di président Macky Sall liggéeyu hôpital boobe nag dina door ci weeru septembre Camara hôpital ba lu toll ci juróom benn téeméeri la la fanweer ak ñeenti service ñaar fukk ak ñeenti salle opération juróom-ñetti pôle médicaux ñaar fukki weer la ñu koy liggéeye yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu alliance ànd gësëm ñoom nag seen xeex bi ba léegi maanaam bàyyeeguñu ko ndax ñoom nee nañu danañu amal ñetti fan yoo xam ne danañu dem ci grève la leen naqari ñoom alliance ànd gësëm nee na dafa am ay négociation yoo xam ne ñoom séqul nañ ko ak gouvernement bi waaye nag dañoo nemmeeku ne gouvernement bi jamono ji dafa mel ni mbir moomee maanaam yitteelu leen yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci diwaanu Louga fan yi nga xam ne moom la ñu génn dafa am benn soxna boo xam ne moo fa ñàkk bakkanam yéen a kaay gi ne na moo taxoon ñu ubbi ci enquête enquête ba li nga xam ne moom la wane am na ñeenti jigéen ñu ñu njort na laale nañu si mandat nañu leen dépôt wal fajir yéen a kaay ñu fekk fa syndicat autonome de l'enseignement supérieur maanaam jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci njàng mu kaw mi bootu ci syndicat bii di SAES e ñoom nag ñoo ngi sàkko maanaam mbir mi leer nañ ca diwaanu Louga jàngalekat yi dugg nañ nag ca mbir ma ñoom nee nañu état bu Sénégal dafa war a dem jusqu'au bout yéen a kaay di évidence xëy duñu xibaar naan ñu Adji Sarr bi mu fi taxawee ne dama ëmb ñu bari ñoo ngi doon xaara maanaam aji sar daal di jur doom waaye nag dañoo dem ba sa mujjantal yaakaar daal di tas ci ñu baree bare yéen kaay gi ne na moo tax ñu ànd ak aji sar li leen dese mooy fas yéene jabuli si Ousmane Sonko maanaam yàq derama yéen kaay gi di estat wax ci éliminatoire CAN 2023 Sénégal Bénin Mozambique ak Rwanda ñooy dem ca éliminatoire yooyee yéen kaay gi di sunu làmb ñu fekk fa Abdou Gueye mi nga xam ne mooy directeur technique écurie Fass Ndakaaru daal nay wax ne lu jëm ci wàllum quatre appuis dafa yàq làmb ji dañ ko war a jële ci làmb ji